moo doon nit bu baax soo duggee laa gis boo laa gisoon boo xam ne bëggul gis lu bon boo fay nekk ndax lépp lu ngeen mel rek seen yaay la soxla waaye nag nii rek la war a mel bu ngeen meloon ne nag ñu ngi leen jaaxal ñu doon lee sant yi nag Baye Omar Dia bu mu dëkkaloon fii Baye Omar yàlla dafa dogal di ñaan hasard moom Baye Amath ak sama Baye sama rakki Baye loolu ko doon liggéey te sant rek mu jëndee ko sama Baye Serigne Massamba bi moo daan bokk na liggéey ñu ñëw fi yàlla boole ñu daje war fii kon nag moom ba mu ñëwee fii ba léegi dafa am lu mu ñu téye moom day toog ba caag rek yéen lu bari di ko yónnee ko ci kër gi. ñu ko yónnee ci kër gi di ko yónnee samay kër. waaw di sant sëñ Moodu Mataan wallaahi wallaahi waaye may leen ma tuuti ma sant moom sëñ Moodu Mataan bu baax a ba léegi yaay sama baay mu jël loolu nangu ko di ko jëfee kon nag loolu bu amee lu dem mënul ñu lu dul sant waaye kii di nag sëñ Basiru sëñ Basiru du jërëjëf ñu lay sant di la gërëm ndax yow bañ amee soxna ba léegi mosoo ko def naka sa noonu mosoo ko koo yar ak teggi na nga ñëw mos a wàcc kër doon nit ku baax nit ku sell bu ko defee ñaanal yàlla yàlla na leen plus que am na ay ay wóolóor yu baax yoo xam ne Modou Lo ay wóolóor yu baax ndax loo xew la seetlu naa takk bi ñoo fi nekkoon ki nga jël nit ñoo fi nekk kon nag di sant alaakaar yaa laaj sëriñ Ka bàyyi baaxe suñu atta gaawaan ñu daje fii lii nga ne sëñ Bamba kese ay Modou Matar Ka mbooloo mi ñu jublu nag ci bàyyi sëriñ Ka sëriñu sëriñu Bass fekk la fii ki nga xamante ne sa collègue la sa xarit la sa doomu ndey muy ngénte Garga 2 seen diggante yéen ñaar la suñu sëriñ la vraiment xam nga Bass mu nit baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm aussi itam ñaanal bébé bi yàlla ko mag mag bu am solo vraiment nit ku baax la quoi bas ak séeréem day rokkee mu nekk ci nga nekk ci écurie moom bonne façon mbër la parce que ñu bari dañu naan yorul comportement bi yorul jikko bi yorul sax jëm yi mbër non bas borom baax la moom moom moom ñu la ko nit ku ne ñu la yàlla bindee ko mais affaire u moom loolu si géew la mais bas moom borom baax yàlla na ko yàlla defal jàmm yaa waaw ah jaajëf Fra baara borom bongo yi. yaa am jàmm. yaa am jàmm maa am baax. sa diggante ak Garga 2 tey ñu ñëw fekk la ci ngénteem muy sax xarit ngeen bokkoon nekk door dóoraat ànd nekkaat jàmbaar aussi ak léegi lan nga may wax ci sa diggante moom. am contentement rek. Mm. di ñaanal doom ji. dama mm. suñ borom guddal fan. mu dem ba teral ay waajuram di wax bas nit ku baax la maam yàgg nañ def nañ douze ans wala treize ans yoo xam kenn mësuñu àtte kenn mësuñu kon nit ku baax la maam yàgg nañ bokk nañ añ bokk reer bokk fanaan bokk nekk sama xarit la boo xam ne mënu ma ko wax fenn yéen ñaar ku mag bas maa ko war a mag ah. na soxna am na doom waaw loolu dara ah waaw loolu dara xam nga yàlla moom mooy dogale noonu mais moom kontaan naa ci moom daal maa ngi koy ñaan yàlla na suñu borom dafal xéewal mm. ak nday roqee jabaram nit ku baax la mm. da nga ma waxoon après combat mun da ngay takk soxna combat bi far mu jéewul am nga am blessure kañ la ñuy xaar euh, Gora Sock am takk soxna wala kañ la ñuy xaar Gora Sock fas yéene laale ci bisam waaw après combat laa la waxoon combat bi ñëwul incha allah rabbi yàlla na combat bi jàll ak jàmm ci barke yonent bi maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom waaw naka blessure bi yaa yam tan waaw maa ngi bu baax yàlla suñu borom yokk tan rek say entraînement wala commencé non man daal maa ngi bu baax kii tey jii njënte moo indi sama ndin nga loolu bu amee. dama lay laaj ci sa santé yaram parce que askan wi ñoo bëgg xam sa santé. waaw loolu ma la ci diggante ak. waaw maa ngi maa ngi man daal maa ngi maa ngi tane bu baax yàlla suñu borom yokku tànn. ñoo bëgg a xam sa état de forme fan la nekk. wérgu yaram gi yaa ngi seeti médecin commencé nga entraîner wala commencé. waaw non man maa ngi samay traitement ba mhm. mhm. ah. boo xam lépp gaañu beeg lépp moom da nga koy wax laaj laata ma doon entraîner waaw. ok. jii maa ngi lay fay. maa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér a wér a wér. ba neexoon na mais promoteur yi yaa ci gën a jantal ndek. waaw noonu loolu la yàlla dogal ndax yàlla day favoriser xale maa fi gën a nekk xale kon su ma ci gënee jantal jaadu na. ndax boo xoolee sama teint ak seen teint bokkul sama taille ak seen taille bokkul sama at ak seen at bokkul. kon nag samay garant lañ samay papa lañ. yàlla dogal na buñ doon tann buñ tegoon trophée ne promoteur bi ci gën a rafet man lañ koy jox. jëlal coofe ci promoteur man waaw gàtt saf. taay bi du la bi nan la may handicapé yow loo ma sutee. loo mën a jël jot jot te ma koo jot. nañ teg dara ci kaw ne na ko promoteur yi laal. Ah. nañ teg dara nañ jël loo xam ne nii dañuy toll xool lu mat 4 ah. wala 3 ñu teg fa benn affaire nag na ko kenn jël. Hmm. loo xam ne njool du ko jot ndaama du ko jot ma may tëb jël ko ndax maa leen gën a oyof. <laughs> tey ñu ñëw fekk la ci xew ki nga xamante ni mooy Garga 2 seen relation yee ñaar laal la. waaw Garga de relation lamb relation dëkkandoor mu nekk euh, nit ku baax su amee xew en tant que promoteur moom muy mbër même suñu sequl dara sax ñu yëgal ñu ko dañu war a ñëw teew waxuma nag bi ñu nekkee ay dëkkandoor waaw kon bu amee xew lu ñu war rek lañ def bàyyi suñu soxla yëpp ñëw teew comme bu bu ko mbër mu mbër mu mën a doon ci làmb su amee xew muy bànneex ak lu mën a doon suñ ko yëwee dañuy dem teewal ko loolu mooy fii suñ teewaay. am na solo yaa Garga 2 ku mag. Garga 2 ngay laajte mag moom ku mag. ah moom mu takk soxnaam gisoo fi ay rakam ba def baas bi ma ñëw man xale la su ma ko su ma su ma ko magoon kay lim def nii def naa ko bu yàgg. Ah, kañ ngay takk sox kañ lay xaar Jamaïcain takk soxna. incha allah léegi tey rek ndax euh, question bi da ko da nga ko waroon a boole sa bopp nga ko waroon a posé par doon ma ko laaj. am droit ma la laaj nga ma ci kanam incha allah rabbi yow yaa ma mag fuuf hmm. te ba léegi takk goo soxna. kon question bi ni nga ma koy laajee noonu nga ko war a laajee sa bopp. lu tax nag doo takk xam naa ko ndax ci li nga nekk daa neex. waaw man. lay jaajëfal jawee kee ah, kañ ngay bàyyi saa yu ma la dékkee bi koro rek nga sànni ma xeer. sànni ma la xeer dëgg laa wax yaa ngi may laaj man kan laay takk soxna wax naa la ko ci kanam incha allahu rabbi. a ah, bientôt waaye yow doo gaaw a takk ndax ci li nga nekk la. jërëjëf jërëjëf. am